jumaa yeeg waaw lu xew ci jumaa yeeg jàkka yi mbaa jàpp ah nañ déglu tey hmm. waaw moom daal ku am sa pàpp bu dee imaam xëccal rajo bi yokk ne ko mbaay <laughs> kaay déglu bala nga bala nga <laughs> Cheikh Tidiane Coulibaly lañ koy wooyee nekkoon magistrat dafa euh, retraité woon nag la ñu wax ñu bari di jaaxle daal lu tax président Sall jël ko yóbbuwaat ko fële ca conseil constitutionnel euh, mu daal di leen euh, mu daal di fay dem wéyal fa ab liggéeyam waaye nag ci loolu ñuy daal dafa jële kenn ca conseil ba yóbbu ko fële nga xam ni moom mooy ca Sénat ba mu daal tasoon ginnaaw ba mu def ay changement ma jigéen nag ñu bëree bari def ay commentaire lu tax ñu dem jëli ji koo xam ne dafa retraité. Mm, daal di koy dugalaat ci li nga xam ne mooy euh, administration bi mu wóyal ab liggéeyam rawatina foo xam ni président Sall euh, daal foofa nee nañ woon ña fa nekkoon cinq la woon mu yokk ko sept léegi nag remplacé na ko jël kenn ca foofa ca conseil ba yóbbu ca Sénat bi nga xam ne am na ñu fa dàqoon mm-hmm. waaw waaw euh, sooy bu ak nguuru président Macky Sall moom mën nañu xaar lu nekk. Mm. parce que sañ-sañ bu fi kenn amul sañ-sañ moom def na def na ko fi te dara fekk ko fi. Mm. même bien avant muy euh, nekk président. Mm. donc euh, ñenn ñi nag dinañ ma wax set sages soxlawu nekkul du da nga war a dem retraite ou pas parce que bu ñu nee set sages rek mën na nekk mag mën na nekk mën na nekk xale. Mm-hmm. mais le fait. muy ni man genre impression boobu laa si am président Sall ba léegi nii xamul mm. genre ni muy mm. def ñun ñoo gaaw yóbbu retraite da ngay gis ku am xam-xam mag mu am xam-xam ñu naan waaw loolu laa la wax ma ni la bu ñu nee cette charge ah. mën na soxlawul muy nekk ku nga xamante ne nii genre demul retraite ou pas mm. mais façon bi mu koy defee certes moom mooy xaw a jaaxal sénégalais yi tuuti parce que mënuloo jëlee nit ci ci foofu noonu yóbbu ko Sénat jëlaat kenn ku ñu ne magistrat à la retraite la nga jël ko yóbbu ko euh, conseil constitutionnel donc foofu noonu vraiment président bi moom li muy def moom wax dëgg yàlla son yi bu mhm. Sénégalais yi nañu xippi seen bët di xool rek parce que ak avec Macky moom tout est possible. avec président Macky voilà avec président Macky Sall lépp mën a nekk. mais c'est yi moom wax dëgg yàlla euh, bu dee ay mag ñu nga xamante ne nii dañuy àtte dëgg rek te saa nañ. Mhm. Euh, sereen nañu ci li ñu nekk. nekk li ñuy def dañ koy dox seen diggante yàlla ak suñu boroom mhm. seetuñu par parloo. non mag moom ñaari day xool boromam ndax li ko desee danaan bëri. waaw loolu la mais nag Sénégal léegi nag sooy bu loolu moom fi manqué da ngay gis. waaw léegi nag kon na suñu xel dal mag yi ñu indi fan leen na suñu xel dal ni ñu baal ma dañuy irresponsable. alal wala far. wala féete sa attan na leen def. loolu xale mooy def yooyu xale. nit ci léegi xoolatuñ seen diggante seen borom. nit léegi mandootuñu nit ci léegi surtout mag ñi. bàyyil mag ñi ma jigéen ma jigéen bàyyil mag ñi. mag ñi wax li nekk. non non xale mooy def loolu mag yi léegi wax dëgg yàlla li alaaji doon wax. Serigne Sène ah, moo ko doon wax xaw ma mu ni bu ñu demee ba mag ñi war a yar yaruwuñu léegi nag xale yi nag lu leen neex mën nañoo def parce que bu mag yaru dugg ci mag bu mag waxul ah. li nga xamante ne nii moom mooy dëgg bu mag waxul li nga xamante ne nii loolu la yoon wax xale bu ci jàdd yoon itam ban mag moo koy corriger sooy bu jóg non non mag moom mag mosoo fee gis mag muy wax lu dul dëgg mag yëpp wax dëgg yàlla ndax dañuy jege fa nga xam ne yow man ñeme ngaa waat ni loolu mosoo ko gis sooy mag muy wax lu amul ak nguuru Macky Sall mosuma koo gis mosoo ko gis déedéet mag ñëpp ay wax dëgg ok alaaji waaw mu mel ni am na ay changement yooyu am waaye li jaaxal ñu baree bari ak li jur coow ci réseaux sociaux ci grand place yi mooy lu tax ñu jëli ji benn koo xam ne ci magistrat bi la nekkoon retraité ñu indiwaat ko jamono jiñ toll nii maanaam bu fekkee ne dafa am lu warta mën a ne ba noppi daa ne loolu dina jaax ni parce que xam nit ñi tamit ñiy wax loolu dafa am yu ñu teg ne Sénat nii la war a doxee waaw yi ñu teg ne Sénat nii la war a demee uh-huh. maanaam procédure bi moom la ñuy wax ni moom la ñu jalgati maanaam ni ñu tabbee mbir yi ak ni ñu leen dàqee jaaduwut seen mandat jeex noonu dañ ne jaaduwut maanaam du jëpp la seen mandat jeex quoi xam nga du ñëpp la seen mandat ñenn ñi seen mandat jeex na am na ñoo xamante ni bi ñu leen faleeg léegi euh, seen mandat maanaam dafa am façon boo xam ne noonu lañ leen di tabbee comme tey jii loolu nga xamante ñi nga xam ne seen mandat jeexut ñu hmm. dàq leen te kenn amut sañ-sañu dàq leen te pourtant dàq nañ leen maanaam yooyu ñu teg noonu moom la ñu wane ni lii hmm. doxalin bi jaarut yoon xam nga problème moom sept sages moom. bu fekkee ne tour ba moom wuyoo nañ ko. problème warta am bu ñu lee sage. sage waaw waaw moom warta am problème. donc bu dee nit ñi di njort problème rek. Hmm. kon jàpp nañ ni sept yi. peut-être am na leneen. set yi ñoo validé woon euh, Ablaye Wade. wala set yi daal problème. Ah, alaaji wax dëgg fa yàlla set yi ñoo validé woon Ablaye Wade. <laughs> alaaji parce set change. alaaji ma jigéen yokkal seen kii bi foofu tuuti. ñoo ngi lay dégg bu ah. Ah. ma ni ndax set change yi. waaw ñoo validé woon Ablaye Wade wala du yi. non non du ah du yi ah, dañoo changé woon. waa kay ah kon macha en tout cas daal. kon yi xam naa euh, dinañ. bu bu saas daal moom boo xasee ba saas moom saas. macha allah non ñun ñii moom saas na yàlla ah, na jàmm. sëy loolu moom xamoo si dara. ah ba mu fi ba mu fi nekkee nii lan lañ jaaree léegi lu saasul. ah ñaata candidature lañ fi lañ fi éliminé. non non candidat bi àggagul ci ñoom. ci moom si si dëgg candidat bi fële moo ko téye élection yi ñu passé. yan. élection yi présidentielles yi tànnuñu fi juróomi te pourtant am na ñu ñu. valable mais loolu ay kii parrainage am na ñoo xam ay parrainage moo leen kale. non non mais conseil même bu parrainage amee conseil constitutionnel am na ñu fa jotoon àgg te dañ leen reten dañ leen retenir. waaw loolu si bul ko fàtte. non ma jigéen nag pourtant ñu bari ba ci yow mi àndoon nga ni booba candidat yu bari bari wax del ay lekk. doomu daal candidat yu bari amoon na mais ah. am na si ñoo xamante ni son yow leer na leen leen leer yàlla ni. <laughs> mënoon nañu ay lekk doomu daal non ñu ñu bare woon. ak solo am nañu si at koo mënoon dem. <laughs> maanaam <laughs> lekk doomu daal war nekk candidat bu bu bu doon doon la ñuy seetee bi loolu la waroon doon kuy lekk dama daal rek ñu éliminé la waaw waaw waaw lekk dama daal loolu lekk lekk dama daal bu dama baax de vraiment dañu yomb sax lekkat dama daal ñu éliminé la lekk kii diw lekkat dama daal ale lu jëm diw soobu ah. non non looloo gënoon a gaaw ci parrainage ñu xool la dama daaw kenn ay ñu dem ba kay benn maire jóg ne laay ko lekk ba njiit ko bu <laughs> muy sooy bu doon ñoom la ñu éliminé am ñu bari ñooñu éliminé waaye lekkat dama daay yi ay kan nga xalaat ni moo dul jàll bu doon parrainage ndekk <laughs> kuy lekk doomu daa nu muy mel kuy lekk doomu daa nu muy mel. Amadou Ba est-ce que dina jàll. non Amadou du lekk doomu de ah, loo ci xam ma jigéen. nduru ko Ba du lekk doomu de. Aly Ngouille kooku wis sa lingom. <laughs> Sonko Sonko. non Sonko kon teg bu jaay de parce que lekkatu kaldu la. waaw non non Sonko Sonko day lekk dama daa nga la. Sonko day lekk dama daa. Sonko day lekk dama daa. waaw Sonko da parce que Sonko da kuy entraîné day bëgg ñaari cin te Sonko day ah, entraîné. pourtant Macky ah, mënoon na ah, xëy na bon affaire bi daal léegi soxlawul sonn ku la mos a lekk dama daa doo candidat lekkatu dama daa yëpp daal di am neen borom télévision bi nur na ma lekk kuy lekk dama daal. waaw bugaan nur na lekkat dama daal. lekkat dama daal da siy def Dakar. bugaan boo ko xoolee xam ni lekkat dama daal. kon bugaan du dem. ak kaani kaani gu mokk bi ñuy dëpp non bul éliminer bu baax nag kanam parce que boo waral lekk dafa daal ay jeex ma jigéen sooy bu ginnaaw raay daal hmm. benn imaam